أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ñëw di ànd ak yéen tey ci dars boo xam ne gëjoon nañ ko def ndax occupation yi ak jot yi waaye mbokk yi soññuñu ba ñu delsiwaat tey tàmba di ko tàmbaliwaat mooy baaqa min rawdi rasul sallallahu alayhi wa sallam benn cab benn bouquet boo xam ne dañ leen koy jëlalal ci jardin yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne sunu yonentu muhammad lépp luñ jële ci moom njëriñ lay nekk àdduna yiw lay nekk allaaxira njëriñ lay nekk ci àdduna tiyaaba lay nekk allaaxira moom sallallahu alayhi wa sallam lu tax yàllaay ki nu wax ci alquran lu leen yonent indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen yonent bi du indi lu dul njëriñ ak xéewal ak yiw tey bukke boobu baaxa boobu mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu abu hurayra nettali xam ngeen abu hurayra kenn du leen jaaralaat ci kan mooy abu hurayra mooy abdurahman ibnu saxr dawsi mooy saxaaba bi nga xam ne moo mokkal ci xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam 5374 xadis moom abu hurayra nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kalimataani xafifataani ala lisaani saqilataani fi lmiizaani xabibataani ila arrahmaani subhaanallah wa bihamdihi subhaanallahi alazim muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tënk gi ko yàlla may muy tënk wax di tënk ay njëriñ yoo xam ne du sonal nit ci mu mën a koo dégg mun koo comprendre mun koo xam mun koo jëfe mën cee am ay yiw ci àdduna am ci tiyaaba ëllëg àllaaxira yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñaari baata ngi nii yu oyof ci làmmiñ ñaari baat yoo xam ne dafa oyof ci làmmiñ xanaa làmmiñ bu koy wax du ci am jafe-jafe su koy génne du ci am jafe-jafe ñaari baat yooyu dañoo oyof ci làmmiñ bi ni mu koy tuddee waaye thaqilataani fil misaan cay buñ demee ëllëg yowmal xiyaam ba yàlla war koo jël teg ko ci balance di ko peese ay tiyaabaam kenn xamul fu mu toll allahu akbar ñaari baat yu oyof ci làmmiñ diis ci balance ëllëg yowmal xiyaam lépp lu nu indi buñ tegee ci balance ñaari baat yooyu ñoo lay gën a diis mu ne xabibataani ila rahman waaye ñaari baat a ngi nii yu yàlla bëgg allahu akbar yu yàlla sopp yu yàlla naw yu yàlla fonk waaw ñaari baat yi moom yan baat la ñaari baat yoo xam ne dañoo oyof ci làmmiñ diis ci balance ëllëg yowmal qiyaam yàlla bëgg leen lool waay waay mbokk jullit yi ñaari baat yi yan baat la mu ne subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim sell ñeel na yàlla moom mi nga xam ne moo yeeyoo cant sell ñeel na yàlla borom màgg gi allahu akbar ndeke ab jullit buy wax subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ne yëg ne mu ngi wax ñaari baat yoo xam ne oyof na ci làmmiñam waaye ëllëg yuy diis ci balance am la waaye moom jullit bi mu ngi wax ñaari baat yu yàlla bëgg doyoon na rek ñaari baat yi nga ci am tiyaaba rek ndax yàlla da leen a bëgg nga yëg ne yàlla daa bëgg dara nga koy wax wala nga koy def loolu dong nga doyoon na waaye xoolal mu ne dafa diis ci ëllëg balance yowmal qiyaam ana kan ci ñun moo bëggul balance am diis ëllëg yowmal qiyaama ci ay yiw ci ay tiyaaba buñ ñëwee ci leeral xadis bi mu ne baat bii mu wax ne kalimataani xabibataani ila rahman ñaari baat la yoo xam ne yàlla da leen a bëgg mu ne baatu kalimataani xabar la muqaddam xabaar la goo xamante ne dañ koo jiital lan mooy mubtadaam mooy subhaanallah wa bihamdihi subhaanallahi alazim lan moo tax ñu jiital xabaar bi mooy taswiqi saami pour kii dégg ñu fonkloo ko ñu bëggloo ko ñu soññ ko pour mu xam ne kat ah lii ñu lay xabaar kat lu am importance la moo tax ñu jiital xabaar bi pour wax ji ñu yëgal na ne wax ji saa yoo xamante ne dafa gudd wax ji saa yu guddee xabaar bañ lay indil dafay neex loolu tax ñu la koy jiitalal ndax kat kasratul awsaaf al jamila tuzidu saami sawqan bëril giñ lay bëril ay melokaan ci mbir naan la nii la mel nii la mel nii la mel bëril googu ñu lay bëril melokaan yi yow mi nga xam ne yow lañ koy melal danga koy gaaw a bëgg ndax kat façon yiñ la ko melal dafa bëri xoola yàlla yonent bi ba mu lay bëggloo ñaari baat yi daf laa wax ne dafa oyof ci làmmiñ diis ci blanche yowmal qiyaam yàlla da leen a bëgg xoolal melokaan yooyu mu la ko jox pour rek yow miñ koy waxal nga gaaw koo jël xam ne kat lii ñu lay wax lu am njëriñ la qaala alxafiz ibnu alxajar fi lfath loolu boroom xam-xam bii di ibnu xajar al asqalaani moo la doon firil ñaari baat yooyu mu ne ñaari baat yi mu wax ne xabibataani ila arrahman qaala alxafiz ibnu xajar sëriñ boobu nee na ba tey nga yëg ne yow mi ñuy melal lii xadis bii daf lay won ne siatu rahmatullah yërmande yàlla ni mu yaatoo ala ibaadihi ci jaamam yi allahu akbar yàlla yërmandem yaatu na nga wax ñaari baat yi rek ëllëg yowmal qiyaam mu diis ci sa balaas allahu akbar waaye yàlla mu baax lan nga wax ba ëllëg nga am tiyaaba gu rëy gi subhaanallah wa bihamdihi subhaanallahi alazim yërmande yàlla gu yaatu waaye yemul ci loolu xaysu yujaazi ala alamali alqalil bisawaabi aljazil moom yàlla da ngay jëf-jëf ju tuuti wala nga wax wax ju tuuti moom yàlla mu fay la ci fay boo xamante ne kenn xamul nu mu toll xoolal lii la waa ji wax ëllëg yowm alqiyaama ñu tegal ko ci balansam loo xam ne diis na ba kenn ñëpp jommi kenn xamul fu mu jëlee lii nekk ci ñaari baat yi la ko jëlee mbokk julli di ngeneel yi haadihi alfadail alwaarida fi fadli zikri ngeneel yi nga xam ne dafa rot dafa bàyyeekoo ci ngeneelu tudd yàlla lii nag ñi ko moom mooy li ahli sharafi fi diin mooy ñi nga xam ne ñu am tedd nga ci diine ñi nga xam ne ñoo laab bàyyi lu araam bàyyi mooy yàlla waaye bu leen yaakaar ne nit dana nuur ci mooy yàlla ba pare di am tiyaaba yu mel nii mbokk jullit yi xadis bi lañ ciy jëlee ci ay njàngin mooy alxath ala muwazabati ala hazihi zikr alxathu ñaax soññaate pour continuer ci tudd yàlla xadis bi daf ñuy ñaax di ñu soññ pour ñu continuer tàmm tudd yàlla tabaraka wa taala ñu sax ci bañ a yokkat saa yu ñu xëyee suba bu guddee bala ñuy tëdd ni ko yàlla waxee tudd leen yàlla suba ngoon ñu mën a nekk ñoo xam ne suñu làmmiñ ngay tudd yàlla xadis bi lu njëkk ci lim ñuy jàngal mooy nañu bëgg nañu tàmm tudd yàlla tabaraka wa taala ñu sax ñaareel mooy isbaatu sifatul mahabba lillahi taala ah daf ñuy saxalal benn melokaan ci melokaanu yàlla yi mooy yàlla day bëgg allahu akbar yàlla day bëgg ndeke yàlla day bëgg yal na nu yàlla bëgg mbokk yi ku yàlla bëgg lu yàlla bëgg loolu ngeen ci xam ku yàlla ne bëgg naa la allahu akbar mbir moo xam ne yàlla ne dama koo bëgg xoolal jaamu yàlla bi ndekkeen li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw yàlla dakaa bëgg allahu akbar habibataani ila arrahman yàlla tabaraka wa taala moo bëgg ñaari baat yi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim hadis bi duñu saxalal benn melokaan ci melokaani yàlla yi mooy almahabba yàlla day bëgg yow yàlla yàlla na ñu bëgg ñetteel aljamcu bayna tanzihi llahi taala wa sana alayhi ala du'a hadis bi dafa boole laabal yàlla ba pare tagg ko subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim laabal na yàlla tabaraka wa taala setal ko ba mu set wicc mooy subhanallah wa bihamdihi waaye yàlla tagg genn wàllu xadis ba tagg na yàlla mooy subhanallahi alazim kon ñaar la boole màggal ko ak laabal ko setal ko bàkk ko kañ ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal loolu dañ koo bëgg sooy ñaan sooy ñaan fexeel nga laabal yàlla fexeel nga tagg ko subhanallah wa bihamdi adada xalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimaati wa adada kalimaati baat yu mel noonu subuhun quddusun rabbul malaa'ika war ruux allahu akbar subhaana dil jabaruuti wal malakut wal kibriyaau wal azama dañoo bëgg booy ñaan bala ngay ñaan taggal yàlla laabal ko nga doog a ñaan ñeenteel bayaanu rasul sallallahu alayhi wa sallam li ummati al asbaab allati tuqarribuhum ila allah wa tusqilu mawazinahum fi daari l axira yonent alayhi salaatu wasalaam leeral na xeetam sabab yoo xam ne mbir yoo xam ne jëf yoo xam ne daf leen di jegeloo yàlla tabaraka wa taala ëllëg yowm al qiyaam seen balance day diis buñ demee àllaaxira yooyu jëf yonent bi nañu la yàlla fayal na muy fay ay yonent ëllëg bis penc jërëjëf yonent bi yow de yaa ñëw pour leeralal ñu lan la ñuy def naka la ñuy def yan yoon la ñuy jaar ba ëllëg ñu jege sunu borom allahu akbar waaye yonent bi moo baax mënoon na ko nëbbal ali wala mu nëbbal ko Hussein wala Hassan wala Fatima comme tey nuñ koy defee ci àdduna di nëbbal di nëbbal waaye yonent alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw di nëb di di leeralal xeetam li ummatihi xeetam lan la leen di leeral al asbaab allati tuqarribuhum ila allah ay sabab yoo xamante ne ay mbir yoo xamante ne ay jëf yoo xamante ne ay wax yoo xamante ne buñ ko defee jege yàlla allahu akbar yàlla bëggunu waaye ëllëg yowm al qiyaam suñuy balance day fees dell ak jëf yu baax buñ demee àllaaxira mbokk yi juróomeel isbaatul mizaan xadis bi dafa ñëw di ñu saxalal ne ëllëg yowmal qiyaam dañuy peese jëf yi waaw loolu dafa ñëw ci ay lenn texte ne ëllëg yowmal qiyaam dañuy peese jëf yi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatin radia kon ëllëg dañuy peese loolu na leer ci ñun bu ñu yégee ne ëllëg dañuy peese jëf yi nag kon li ñu war mooy nu góor góorlu ba suñuy jëf yëpp bëri ba yu baax ba ëllëg buñ koy peese ñu mën a am balance bu diis yowmal qiyaam juróomeel juróom-benneel isbaatul wazn amalul ibaad ëllëg yowmal qiyaam sax na ne jëfi jaam yi dañ koy peese jëf yu baax yi dañ koy peese jëf yu bon yi dañ koy peese juróom-ñaareel mooy at tanbih ala siati rahmatillah hadis bi dafa ñëw di ñu leeralal ne yërmande yàlla dafa yaatu ay su yujaazi ala ala al amali al qalil bi sawabil jazil da ngay def jëf ju tuuti mu fay la lu bëree bëri lan nga wax subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim ëllëg sa balance daal di diis yowmal qiyam mbokk jullit yi lii lenn la ci lu ñëw ci ay njëriñ ci xadis bi abi hurayra nettali ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisaan xabibataani ila arrahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim mbokk yi lii moo doon sunu dars muy baaqa min rawdi alxabib min rawdi almustafa sallallahu alayhi wa sallam benn cab benn bukke buñ leen doxantul ci toolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jardin yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal leen ko fay dindil ambaleel leen ko ba mu rafet daal leen sukk jox leen ko pour ngeen boole ko ci seeni askar seeni wird pour ngeen boole ko saxal ko ci seeni làmmiñ subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim yal leen yàlla may nu màng njëriñ yi maa ngi leen di jégglu di leen ñaanal yàlla tabaraka wa taala ni ñu yàlla boolee ci àddina ñuy jëflante di jokkoo di góorgóorlu ci sunu diine yal nañu yàlla boolee noonu ëllëg ñu nag sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljanna firdaws góor ak jigéen mag ak ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu